Souleymane nga génn Sonko da nga war a génn Sonko deux Sénégalais deux mesures loolu kenn mënu ko fay bañ nee naa la waa ji ne nañ roy Ousmane Sonko mu ngi doxi soxlaam non mais au même moment euh, Oustaz Assane Seck est en prison absolument Oustaz Assane Seck est en prison le maire Omar Ba bi boo xoon ne président Macky Sall mu nekk candidat le pays sera en feu et en sang mu ngi doxi soxlaam te ñoom ñaar ñëpp nekk ay Sénégalais ëppale woo ko fi dara waxul ne nañ def Macky Sall comme Samelo waxul loolu mu ngi prison mais ki ne lañ rek euh, mu ngi doxi soxlaam il n'est pas en prison pour ça. wax na ko fi nekkul prison non ah, n'est pas en prison. Oustaz Assane Seck daal est en prison pour les mêmes propos que le maire. maanaam maanaam bu ñu toogee ba projeté ay effets spéciaux naan Ousmane Sonko moo wax lii nangam gis nañ vidéo yooyu yëpp dem am déet mais kii la wax ne la nañ ko rey kooku mu ngi dox soxlaam loolu doo ci wax maître. lan la euh, wax wax lan. doo ci wax dara. lan la wax. dara garaawul y' a pas doo ci wax dara y' a pas ñi nga xamante ne taxaw nañ actuellement ak Tambacounda. ay Tambacounda. à Tambacounda ay militant wu APR ñoo doon taal ay pneu. police di leen dàqe ji ñu dem ñoom ñëpp ay ñoom Zahra Wague ñu deful dara seen kër lañ leen fekk tëj leen looloo xew ci dëkk bi. bon loolu il faut parce que réew loolu da nga koy minimiser. parce que xamoo ci dara man dama ci xam dara. non donc euh, c'est ton opinion. c'est pas mais xamoo dara mais mais mais mais mais oui mais il a droit aussi bañ a xam li ñuy wax. yow xamoo ne l'honorable député Cheikh Seck nee na candidature Macky Sall il est censé attendez man je suis pas là pour être pour faire comme vous mais mais parce que euh, dégg naa parce que manipulation ngeen nekk. lan li ñu wax ci internet ci réseaux sociaux ngeen jàpp li manipulation loolu xaw ma ne assemblée nationale moo taxaw ne bu candidature bi jërë dox ci cadavre moi ce que je dis c'est clair li nga ah. wax ni xaw ma si dara. Eh, waay ndaw sax oui mais aussi ah, dama xam ne dama ah, xam dara. il a le droit parce que li nga mën a xam dara rek mooy loo xamante ne parce que da nga nekk acteur politique. comme yow dama nekk acteur politique dama xam nga ce qui mais xam nga ce xam nga li ma li ma dul bañ. mais xam nga yaa li ma dul bañ man dagguma la de. <laughs> vas-y il faut terminer. très bien <laughs> léegi nag fi ma toll nii au vu de ces faits yoo xamante ne nit mënu koo dindi ay faits la vidéo yaa ngi fii uh-huh. pour en attester deux Sénégalais deux mesures kumba am ndey kumba amul ndey ñaari acte yoo xamante ne similaire nga tëj kenn ki bàyyi kenn ci après ñuy bëgg taxaw di ñu wax la blanc de lay di xool sénégalais yi naan la état de droit mi ngi fi démocratie mi ngi fi équitable redistribution des ressources rek tax na sénégalais bi di suñu appayé l'impôt c'est déplorable moment boo xamante ne loolu loolu mooy euh, mais mais mais c'est parce Sall d'abord avant de faire gis le succès d'un opposant politique maître le succès d'un opposant politique n'est pas seulement tributaire de son savoir-faire mais des excès des erreurs des errements du régime pas des na moom nag moom lu mu mënoon a am ci génie ah, ah, politique. Ah. lu ko buggaat mën a am lu ko dëccee mën a am. si Macky Sall jëloon les euh, présidents. sénégalais aussi. donc bu doon bu doon jël problème sénégalais taxaw ci benn opposant du am popularité. parce que. mais mais mais mais mais mais mais Aliou. peut-être yow garaawul quoi amul problème à l'aise tout est mais sénégalais bi nga xamante ne jël na maanaam Nicaragua yoon ba ak danger yi ci nekk yëpp. mais kooku bu amoon lu ko neex ci réewam dina dina dina fa daw. et au-delà de cet aspect économique et au-delà de cet aspect économique am na ñuy exilé wu pour liberté. oui mais yow. yow très bien Aliou ce que l'État a fait en termes d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires dans ce pays. c'est des qui sont combien à la population bi fonctionnaire yi. mais mais il faut déplacer le débat. franchement. waa fonctionnaire yi lu mu doon loolu mooy débat. non non on est donc il faut il faut. ah mais loolu intéressé wu ma. d'accord s'il vous plaît beaucoup de choses. si on va y revenir l' état l' état a fait beaucoup de choses ay ndaw di génn di dem en terme d' emploi l' état n' emploie des fonctionnaires l' état ñooñu la mën a. dinañ dinañ ci ñëw suñu deuxième point. on va y revenir merci Aliou merci Aliou. c'est ça le débat loolu moo war a nekk débat bi au contraire. merci le débat c'est pas ce que vous dites. le débat mais mais mais parce que parce que mais li nga wax c'est très pertinent. l' état fait mais après on va discuter de cela. maa ngi def maa ngi def mais il faut ñu waxtaan ci li état bi di def. ok j'ai pas la prétention. non dañuy dire que tout est fait mais il faut reconnaître que l'État a beaucoup fait. très bien maître. en termes d'emploi en termes d'imposition. maintenant mais mais mais waaw nañu wax ah, ci programme à que euh, mais il faut de à nos jours li ñu jox président Macky ci budget ci moyen ci lépp jàpp naa ne man personnellement loolu moom moo waral euh, comment il s'appelle encore euh, la candidate là doomu. Babacar mu jóg ne war na mën a diriger Sénégal parce que li yomb na kay. ah trop moi la juge pas. man <laughs> ngeen mën non nee na yow bu la neexee nga jëli bu dee lii rek moom mooy diriger réew mën nga ko moom. Mhm. au vu de toutes les potentialités yi nekk Sénégal. une jeunesse amul compétence. da nga ko xeeb yow. ah da nga ko xeeb amul compétence. pour diriger réew mi waaw. non ce n'est pas une question de jàpp naa ne. ah 268 sénégalais. Eh ku yeewu moom aussi sax bu yeewu dem jëli ji fiche naa ñëw ne day jiite Sénégal mais parce que li mu gis de 2012. de 2012. Mm-hmm. à 2024 wala eh, ay bien naa ko. très bien ku ànd ak yow nga tëj eh, nga bokk nëbb ku àndul ak yow nga tëj. très bien seet di gundaandaat ay kër yoo xamante ne xaalis ba mu fees dell moment boo xamante ne. merci Pape Moussa dañuy Sénégal ndox amu fa. Hmm. couloir de la mort. merci Pape Pape <coughs> bu naa ma dafa am lu mu wax sànq. loolu dafa am solo parce que chaque émission dama koy évoqué fii l'état de droit maître nee le président a beaucoup fait mais le président a beaucoup defee aussi. <laughs> <laughs> sur c'est pas non mais il, il a beaucoup de non dinaa ñëw parce que li mu wax dama koy argumenté. parce que je crois que l'une des missions principales du président moom bi muy falo lu mu njëkk a wax mooy man damay tabax ay nit. Mm. tabax nit boobu nag cest à mooy loo xam dafay reposer sur des valeurs. mais on a senti que sous son magistère les valeurs quand même ont volé en éclat. xam nga le problème du Sénégal c'est pas un infrastructurel parce que infrastructure ba lu mu ñëw dafay fekk d'abord ñam ña nga xam ne ñoo koy jariñoo am benn ndëgër laay moral boo xam ne ci la ñu war mun toog te loolu dafa sooxee léegi ci réew mi li ko indi mooy état de boobu nga xam moom la ñu waroon instituer pour mën a égaliser l'ensemble des citoyens égal état état de droit boobu amatu fi parce que boo jikkee dans une société nga dem ba ne da ngay def xaaj ak seen que y a des yoo xam ne mën nga ci épargne ñi nga téye ñi bàyyi ñi ça veut dire que foofu équité amut fa et moi je dis que le président en je crois c'était le 3 avril bi muy bi muy bi muy euh, def je crois euh, message à la nation quand il disait que je ne protégerai personne mais mm-hmm. bu personne man ba mu dama tiit parce que je me suis oui parce que xam dans un état boo xamee ni où il y a une séparation des pouvoirs le président n'est même pas habilité à protéger qui que ce soit parce que kii wax ne damay protéger mooy ki ko mën aujourd'hui Macron mënul taxaw daal ne je ne protégerai par personne bu ko mënoon Éric Dupond-Moretti bii ñu condamné barki dem du kon kon kon kon du dem. si parce que moom la ñu tamit. waaw c'est des may ma may ma maître may ah, dama lay corriger waaw d'accord ok waaw waaw d'accord waaw li maître wax dëgg la tout cas on n'allait pas le traîner devant les tribunaux mais sous le régime du président Pa Moussa évoqué na ko léegi quand une institution aussi prestigieuse comme la Cour des comptes dem di saytu ministère même ne dax leen ba pare boole ci leen vous n'êtes pas une cour des comptes mais vous êtes une une cour de xawma de rendement des comptes c'est-à-dire boobu lay utiliser dax leen comme ça ñu nekkoon ci dëkk boo xamante nii jàpp naa ne président bi am na autorité ci ministre boobu jour boobu day tekk ndomba tànkam Fat Tambidou ba mu taxawee assemblée nationale manqué de respect son ministre bi nga xamante ne moom c'était son supérieur jour boobu président dafa tekki ndomal tànkam te tout le monde avait applaudi parce que une hiérarchie da koy respecté mais nit mënul ñëw cour des comptes nga xam ne on parle la du principe de la séparation des pouvoirs. ñi nga xam ne ñooy saytu ñëw def seen liggéey ba pare dàq leen ak avec vraiment la manière ba pare ñu bàyyi leen ñu continuer di plastron dans la république état de droit boobu moo fi amul malheureusement. te loolu moo waral chaque fois nit ñi di jooytu les deux pois deux mesures yi nga xam moom la ñuy gis man dama jàpp ne citoyen moom justiciable justiciable rek mu nekk fii mu nekk fii ku def njombe ñu teg ko sa kaw mais combien y de rapport de Cour des comptes fii waaye ARMP ñaata yoon lañ fi génne fii ay rapport mës ngeen ne dégg benn yoon une seule fois une seule fois quelqu'un du pouvoir boo xamante ni on a épinglé sa gestion ñu ne il y a eu des suites juridiques li amoon ci dossier Petro-Tim gis nga nu mu mujjee ba léegi waxaatu ñu jëm moi je di dis ñoo def mais dama ne au moins que ñu enclenché des procédures judiciaires bu mu ñëw ba ca cappaandaw ga ñu ne ñu établir ne deful ñu dara su boobaa les Sénégalais vont applaudir mais on a enclenché aucune procédure judiciaire ci li nga xam ne moo nekk fii yëpp loola nag moo fi dañ et loola moo feeñ aujourd'hui sur des gens yi nga xamante ne dañuy postuler à la présidence de la République on utilise yenn canaux yi pour mën leen a écarter sa a commencé avec Karim parce que man Karim li nga wax léegi quand on a sorti la liste des vingt cinq dignitaires uh-huh. suñ ko demoon ci ñëpp kon problème bi kon problème du ci am mais jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à aujourd'hui benn nit nit la moo ci jàll benn toi ah, ne benn nit boo ci jàll loola parce que am na ñu ci waroon jàll jàlluñu si. mais mais ah, moom laa non je ne parle pas de Taïba moi je parle les dignitaires libéraux yi yooyu laay wax. la liste des waaw je parle de la liste de ces 25 là. te vis liste 25 yooyu yow xam baax ñi may wax ñan lañ donc ñooñu France daal di xëdeen finalement ñenn sax dañu dem transhumé et président bi lu mu waxoon fii Walfadjri mu ne transhumance c'est le cancer de la politique du Sénégal te su falo transhumance moom dafay jeex ci réew mi. mais après lu mu wax mu ne il faut grossir euh, agrandir les rangs mais bu ngeen ñëwee taxaw leen ci ginnaaw bu leen ndax taxaw ci kanam donc ça veut dire que on bénissait maintenant la transhumance bi nga xam ne avant on l'adorait mais aujourd'hui on l'adore voilà fu ñu nekk quand on parle de la démocratie man nee naa leen Abdou loo ko mën wax loo mën wax Abdou Diouf au moins am na ay jalons démocratiques yoo xamante ne nii ay avancées significatives su su le règne du Diouf dañ ko am le code consensuel l'élection de la DGE l'ONEL ak aussi un ministre indépendant pour gérer des élections loolu lépp sous le régime du Diouf lañ ko am loolu moo permettre la première alternance am Abdoulaye Wade idem et jaar foofu le président qu'est-ce qu'il avait promis ici la même chose sinon même plus que ça mais loolu lépp dañ ko dijjati benn par benn et ce qui a été beaucoup plus grave mooy l'histoire des parrainages là parce que parrainage bi suñ ko dans son essence lu baax la mais niñ niñ ko imposer ak niñ ko instituer finalement on a vu que c'était tout simplement pour procéder à des sélections mais pas pour aller vers des élections loolu moo indi pëccoxoo bii ngay gis nii ci parenage yi nii pëccoxoo bu metti bii di ci am dans le pays boo demee en Europe il y a partout ay parrainage day am mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que bu de parrainage nga ne am naa ay million de parrain ay 2 de parrain au moment où on ne demande on ne léegi nga bëgg bu ñëw am na deux deux am na am na un million de parrain léegi parrainage yi yëpp qu'est-ce qu'on va en faire c'est yooyu la ñu waroon toog waxtaanee ko mais jour ba ñuy def loi bi keroog on a quadrillé toute la ville la on may ñu sax nit ñi ñu dem manifester pour wax ne nous ne sommes pas d'accord avec cette loi là et c'est ça qui à la base récemment de ces nominations qu'on a au niveau de la Sénat et qui ne respecte pas euh, le le code électoral parce que li ñu wax les principes de neutralité et d' impartialité dafa feeñ ci ñaar ñoo xam ne ni dañoo bokk aujourd'hui c'est des membres de heure bi ñu ko defee aussi je crois que loo gis politique dafa am élégance parce que dama ne élégance boobu mooy tax sa adversaire souvent nga nangul ko sax lenn li gis nga loi yi nga xamante yëpp ci lañ condamné ñoom Karim ak yooyu amoon na fi ah su la reñ su la reñ Diouf amoon na fi Abdou Diouf rien ne l'empêchait mu utiliser code bi wala mu utiliser CREI à l'époque daal ne Ablaye doon na nekk candidat Diouf ne l'a jamais fait Abdoulaye Wade était mêlé à, un, à une histoire d'assassinat de juge tegal ci mais kenn mësul teg loolu ci kawam mais sous le magistère du président quelle que soit la réalisation infrastructurelle mais sous le côté immatériel quand même il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont été complètement détruites et loolu man li ma gën a naqari ci régime loolu ci la ci la bokk parce que état de droit